4,27 avec un grand Stéphane Curie bien voilà ci 2 minutes mu dugal 4 tirs à 3 points vraiment rien à dire c'est le roi des 3 points. ek ñu bàyyi wàllum basketball àddu ci wàllum football lii ngeen mooy comité shield bi ngeen ma jàppale mooy super coupe mën nañ ko dëppale foofa ci Angleterre ñu ngi fas yéene man si dikan mooy mujjee daan Manchester United ca teg dóor ya nag nag bañ te mbooyee benn ci benn ko ñoom tàmbali nañ ci anam yu mu gënee lii nga xam ne mooy seen ab saison. Erling alang nag jàpp leen nag ñu taxawundi fa ndax jàpp leen bu baax final à toute compétition confondue waaye nag musul lakk caax yi ak clubam boobee Savinho do brésilien bi mooy seen recrue moom gàddu na raaya bu njëkk Pep Guardiola nag bii mooy fukk ak juróom bi yam na ko depuis que kat ko club boobee kon vraiment rien à dire. et que adversaire boobu di Marseille United ñi ngi fësal bi seen final bi mu ñàkk nekk ci comédie sud bi mooy ñoom nag ñoom nag ñoo équipe bi avec 21 comme ni Tottenham ak Bayern doon nañ doxal benn match bi wala dañ cee tegoon trophée ci noonu ñu ngi fësal kat Bayern mooy mujjee daan kat ñetti bal ci ñaar Pape Matar Sarr ma nga woon ci milieu bi dox poste gugulu am na ci moom mu doxal ba 90 minutes ji avec 89 de passe ñu ngi fësal Harry Kane kon remporté na vraiment nag trophée ci stade bi nga xam ne fala bawoo waaye moom nag Balla nag yëkkati raay boobee nag bu ko defee mu jox cër kat ancien clubam boobee ek nag Balla occasion loolu nag mu daje kookee di Son Birame ñoom ñaar def nañ lépp laata mu fay bawoo. ñu addu ci wàllum jënd ak jaay lépp léegi lépp yemb na jàpp leen bu baax Bayern ak Marseille yu amal nañ déggoo de kon doomu néerlandais bi nga xam ne moom mooy di leex kon dina utile ci club bu di De Vrij boobee ak montant transfert bi na xayma nekk ci 50 millions d'euros de même que di Mazraoui aussi mi ngi gën a jegandi autorité ci club bu héritier xat boobee nag montant transfert woon nañ ko xayma nag lu tollal 20 millions d'euros ñu ngi fësal bés bu di Van Bissaka moom aussi dina takk ay bagage dem ca West Ham ñu ngi fësal vala bu soxndiko ci David Ostheim de moom kat vala ci dimanche bi wala boog ci altine bi dina li nga mooy visite médicale Tottenham dalal nañ attaquant bi nga xam ko xarañ la kenn du ko lamlaame ginnaaw ba mu dugalee lu mat voilà bi ci saison bi génn jàpp bu baax moom mi ne mooy Dominique Solanke dana dox ca Bournemouth clubam boobee nag jaay na club sports boobee lu mat 75 millions d'euros bi am ne voilà moo tollal loolee nga xam mooy close am kon ngi fësal xaatim na bu juróomi at. West Ham ñi ngi gën a dooleel seen équipe boobee défenseur français football am na lool ci moom yaakaar muy Jean-Claude Todibo li ngi fësal jóge na ci OGC Nice waaye club français boobee da koy abale nag club bu Hammersbill mooy club bu Lopetegui bi voilà benn péré la nag waaye dañ ci dégg li nga ne mooy obligation d'achat bi nga xam ne xayma na ko ci 40 millions d'euros bu ñu nee obligation d'achat nag mooy que bu fa doxalee benn saison voilà dinañ fay nag voilà 40 bu ko defee mu mën a seen ab zone Chelsea bi nga xam ne mi ngi yëngu bu baax ci mercato bi dalal nañ ko kii di Sami Omar Diom bi nga xam ne dafay bawoo dafay bawoo de foofu caati ko Madrid jàppale leen bu baax yegg na ca Londres wala jàll visite médicalam bu lépp yembe mu xaatim contrat bu juróomi at. foofee ca Barça seen joueur bu bees biir mooy Dani Olmo amal na nag tàggatoo mu njëkk de ginnaaw gi loole mu yëkkati kàddu mu ne dafa yàkkamti dafa yàkkam doxal ak ñëpp rawatina ko kii di Pedri Lewandowski wala boog Frenkie de Jong John Textor bien moom moom moom Lyon wala boog balaa lu ci ëpp kat euh, moom moomeelam da kon ñu ngi fësal ne mi ngi ci yoonu kat jënd club bi mooy Everton bi xam ne balaa dañoo nekk ci yoonu jaay ko kon li leer ba leer balaa club bu Iliman Ndiaye boobee ak Gana Gueye kooku di John Textor ba bëgg na fa ñëw nag voilà nag gën leen dëggal ci championnat boobee ñu def ay jaloore waa ci kaw. jënd ay jour yu mucc ayib Juve de Saturé dañ fësal kat nee na dañoo intéressé ci doomu anglais boobee di Raheem Sterling. buñ soxandikoo ci di marge yokkoon bi bu vieille dame boobee Thiago Motta moo yittewoo lool ailier anglais boobee. Leicester City ginnaaw gi Crystal Palace ba mu duggee ci dossier ivoirien bi mooy Wilfried Zaha daan na fa doxal kon les Fox sixième dañoo yéeg ci leen mooy English Premier League bi dañoo bëgg doole seen équipe ci noonu bëgg nañ mise sur expérience bu Wilfried Zaha. ay kan lañ a def mooy que ñu waxtaan a Galatasaray bi xam ne voilà actuellement la ñuy fësal di ko ruumanaat mooy que voilà mën nañu abale seen doomu ivoirien boobu ñu dëxëñ ci option d'achat. mu def ay jaloore yu mag ci li ngeen mooy jeux yi ak équipe am di Maroc ñu gàddu lii nga xam mooy médaille de bronze bi kon moom min mooy Amiri Sarson de benn jeune milieu la kon li ñu mooy que moom dina utile ci Serie A gi nagee club yi mag doon nañ jëlante mag gëdee pour ma ko dalal waaye Fiorentina ñooy mujj amal déggoo nag comme ni ko fësal waaye dañ leen ko abal ñu dëxëñ ci option d'achat bu 5 millions d'euros. Kondombia ak club am boobee ki nga xam ne mooy bi kat voilà nag mën naa ne li mu wone doy na ko ba dafa am um, mbébét voilà garde ko mi nga xam voilà ginnaaw bi ñu mën na fa quitté nag club saoudien Turki wala boog anglais doon nañ fas seen bëgg-bëgg ci doomu centre africain boobee waaye dafa mën kat bu ñu soxandikoo ci équipe dina fa desandi doxal Marseille moom mi ngi def pré-saison nag bu bu baax lool comme ni ko mën club bu allemand boobee di Augsbourg jàpp leen bu ñetti bal ci dara. club boobee di Bayer Leverkusen dafa joxoon app waa Bayern bu ko defee ñu mën a amal déggoo seen défenseur allemand boobee di Jonathan Tah bi ñu joxoon nag jeex na takk pour le moment loolee lañ fësal kon nag euh, kookee di Jonathan sax moom bëggul dégg loolee di prolonger contrat ak euh, club boobee di Leverkusen kon li mën a def leen dong la mooy ko option bi moo fa mooy que mu toog fa nag ba ba li nga xam ne moom mooy contrat bi jeex bu ko defee mu quitté fa gratuitement ndax moom benn yéene la am mooy mu doxal ci peut-être benn loolee lañ xam ba tax na kat ñuy taaxeelu ci dossier ndax xam nañ ne benn défenseur bu xarañ la kookee mooy Jonathan Tah benn semaine moo des waa France tàmbale li ngeen mooy seen national 2 waaye xam ngeen ne boobu moom dañ ko wàccee ginnaaw bi ñu amee jafe-jafe yéen matalewuñu ko nag comme ni ñuy sàkku ci wàllum koppar jàppaleen leen bu baax na am nañ jafe-jafe ba léegi na actuellement nag lu mat fukki jour dongukat ñooy amal ay tàggatu. Denis Undav doomu almaañ boobee dafay dese ni nag foofee ci almaañ ji dëkkam ak club boobee di Stuttgart jàpp leen ginnaaw bi nga fa abalee mu jot a dugal lu mat 18 bi kon jàpp leen boobaa Brighton jébbal na ko club boobee waaye nag dañoo fay kulosam bi xayma ne ko ci fanweer ci ay millions. Victor Roque dafa amee tawat bu ndaw boo tax tey ci bëccëg bu samedi amalu tàggatu ak këlëbam boobee loolu la médecin yi fësal bu ko ñoo jël benn risque waaye buñ suqandikoo ci média espagnol benn mooy sportu këlëb yi may bëgg lim bëgg nañ loolu doom brésilien boobee di Porto Lazio Napoli jàpp leen bu baax nag Barça dañoo am bébét jàpp leen abale ko nag loolee lañ fësal et ñi nga xam ne ñoo yor ay dossiers di ay agence ñoom dàqu ñu benn yoon Barça abale ko bu ko defee moo am plus de temps waaye nag voilà dans l' avenir jàpp leen ci ëllëgu club boobee nag. buñ suxandikoo ci sport Barça am nañ lool ci moom yaakaar Paris Saint-Germain def nañ nag benn offre buy tollal 8 millions d'euros ci mais buteur ci jiw yi mooy doomu marocain bi mooy Sofiane Rahimi bi am jot naa dugal 8 bi buñ suxandikoo ci 360 sport. club biir mooy Arsenal ñi ngi doon fësal dañoo laxas jaan ci dossier anglais biir mooy Eddie Nketiah waaye buñ suxandikoo ci la province dirigeant yi njiit yu Marseille bàyyeeguñ dee. actuellement sax ak moom ak ña nga xam ñoo yor dossier di agent bu jàppale am nañ déggoo ci condition personnelle ci sa salaire ak juróomi atti contrat sax lañ fa sënd bu fa ñëwee mën na ko fa mën na ko fa xaati waaye li leer ba leer Arsenal voilà nag nee nañ dinañ ko léegi waxtaanee vraiment raisonnablement nag prix bi nga xam ne voilà nag euh, ñaari parties yëpp ku ci nekk di gis sa bopp bu ko defee vraiment marché bi am nañ bébé dalal ko mu ñëw benn yoon doxal ci France. Marseille bëgg ñoo yem foofee de bëgg nañ dalal joueur Lensois benn mooy Eli Wayi ak kii nga xam ne mooy Youssoupha Moukoko bi nga xam ne voilà Dortmund noppee na ko abal nag dëxëñ ci option d'achat. club Lensois boobee ñu ngi def aussi pré-saison bu dal xel lool ginnaaw gi bañ jaaree ci kaw Leicester benn club anglais la pour mi club anglais boobee nag jàppale Leicester ñetti bal ci dara de la ko daan kooku dina police bu mel bi ñu ngi ruumanaa départ am moom joué na ba match ba jeex. pour ci argentin bi ngeen moom mooy zéro numéro yu li biam dafa bawoo ci Ajax waaye lépp yembagul mën naa ne ay détails dong de moo ci des njiit yu Marseille nag li ñuy xaar mooy que club néerlandais boobee envoyé leen li ngeen mooy may yi nga xam ne mooy fësal na ñoom jëbbal nañ leen ko bata na ci ci lu yàggul dara kat dinañ leen ko jébbal bu ko defee ñu mën a fësal ni ñëw na foofee technicien espagnol bi yan mooy Lopetegui boo leen fàttali ko ma ngoon ci Wolverhampton man mës na yor Espagne wala boog Real de Madrid bi yàggu fa woon actuellement nag voilà sas na ay jiitam da ca West Ham ñu koy defal mercato bu exceptionnel bu ko defee ñu mën a dëggal seen bopp ci saison bi ci English Premier League bi daal nañ kuñ kuñ naan Kilman doomu angale boobee lu mat 47 millions d'euros Somerville 29 millions d'euros Full Club 27 Guilherme Rodriguez argenté bu en tant que libre tour ñëw abal leen ko mi voilà moi le jeune défenseur vraiment nag équipe Bobé, des na leen xaarandi ci saison bi. Alexis Sanchez dina signé librement foofu ca Udinese nak ben saison comme ni nga ko ak japp len bu ba ñi ngi fësal ne Désiré Doué gi nag ba mu jeexalee lien moy jiw yi ak France. mu gàddu li ngeen mooy médaille d'argent bi moom yëkkati dina ay kàddu nag ci ëllëgam mu ne nag comme que jeexal na lii ngeen mooy jeux yooyu léegi nag dafa jublu nag ci ëllëgam ak ci lu yàggu dara kat moom ak ña yor dossier am ak clubam boobe di Stade Rennais dina nga xam fan lay dem doxal. Napoli bu soxandikoo ci Sky Sport ñu ngi wàjjal nag benn offre benn offre de bu 30 millions d'euros fay ko wàccee si ñu mën leen jébbal kii nga xam ne mooy Romelu Lukaku ndax Conte vraiment da ko yàkkamti lool lool mu ñëw dooleel seen équipe boobee. actuellement waa Juventus ñu amal seen préparation foofu ca Suède waaye boole ñu ci kii nga xam ne moom mooy Federico Chiesa kon loolee li muy firndeel mooy que moom kat mi ngi ci yoon bu leer kat kii te club bu vieille dame boobee. Chelsea ñu am ay joueurs yu bëri ak nag ñu bëri ni ko jàngatee mooy que ñi nan ñëpp nan lañ mën a doxalee ci noonu ne wala na xel moo ko mën a nangu ñeneen ñi dinañ leen abal. naam jënd nañ leen ku ci man ni Sami Omar Dione ak Marc Guiu kon dinañ leen abal benn saison nag waaye club bi nga ne fa lay doxoon nag fësalaguñ ko kon li leer ba leer mooy ko ñoom voilà comme nañu defoon ci Datoro foofu nag ak yeneen ci ay zone dinañ leen abale Osimhen def na nag benn sàkkuteef à ce que club am boobee di Napoli vraiment nañu trouvé que benn solution mu mën a quitter boobee wala quitter club boobee à l'amiable naam kooke di Lorenz dafa yeewu de xamoon na ne voilà nag benn jour bi nga xam ne ginnaaw ba mu tojee saison bu daaw bi wala ba bu daawati géej bi mu gàddu scudetto bi xamoon na ne jour bi club yi mag bëgg nañ ko mu aj nag clause am lu mat 130 millions d'euros waaye loolee nag mën na ko coûter cher nag club yi noppewuñu teg koppar yu ni mel. ba tax na voilà nag dinañ benn solution bu ko def ñu mën a tàqali koog moom ndax actuellement seen ci li nga xam mooy seen ay wàccaay lim ci doxal bëriwul de ek jàppale Nigéria boobee nag ñu koy lim club bu ci mel ni Paris Saint-Germain wala boog Chelsea bi nga xam ne ñoo ci gën a baral seen ay jéego. xibaar bi neexul dara pour wàcceel si moom miin mooy Reece James encore une fois dafa amewaat blessure waaye blessure bu ndaw dong di lañ fësal yi. wala nag dafa yëg benn méttit ba tax na médecin yi jàpp leen bu baax ñu benn risque nag ek nag dinañ ko saytu bu baax a baax boo ko defee mu ñëw ci lu yàggul dara kat ci seen ay jonte doole équipe bu Maresca boobee. ci lii nga mooy déedéet anglaise bi mooy que championship bi Merzouglou ñoom kat tàmbali seen saison ca na mu gën a dee ñu daan Swansea si benn bal ci dara kon club bu Serigne Timothy Dieng boobee voilà ñoom ndoorteel nañ saison bu baax kon ñu ngi fësal ne voilà moom mbir mooy portier sénégalais bi amoon na clean sheet am bu njëkk. ek nag ñi ngi fësal moom miin mooy Michael Faye naam club yu ci mën ne club bu ci mën stationné voilà fësaloon nañ bëgg nañ ko waaye moom actuellement mi ngi toujours amal ay wàccaayam ak club boobu di Barcelone ci équipe A bi. ginnaaw gi Sofiane Diop ak Maroc ñi ngi xëccu nag pour dala beneen bii national moom nag benn crack moo am fukkeet ak juróom-benn buy soxandikoo ci Footsen mu yoo ci Ibrahima Mbaye indi woon na ko ci xibaar yu weesu ma ngay doxal ca Paris Saint-Germain benn jeune ailier la bi nga xam ne kenn du lam-lamme xarañteefam moom doxal na sax ci li ngeen mooy U17 bu waa France kon waa France aussi ñu koy bàyyi gët waaye li leer ba leer Maroc aussi lañ def ci dossier bu Sofiane Diop bi bëgg a def ci kii nga xam ne moom mooy Ibrahima Mbaye bi am ne voilà waajurum bu jigéen lal na dëkk royaume chérifien boobee kon li leer ba leer voilà Sénégal li leen daloon ci Sofiane Diop buñ bañee mu daloon ci Ibrahima Mbaye nañ ci defay ay jéego waaye comme kay waxee def ci ay jéego nag voilà léegi jour bi nag moo jël ay ndogalam waaye nag lu mënul ñàkk nag foog mu am mooy que foog ñu def les premiers pas bu ñu demee xam ne kat voilà jour bi moom moo ñu gàntal ñu xooli feneen. Alioune Badara Balde moom abale nag ca Bundesliga club boobu bay di OGC ni ñoo ko abale club bi mooy Bochum na moom Gambie Guinée lay représenté waaye doomu réew bi la El Hadji Malick Diouf vraiment il est en grande forme. Ailier gauche sénégalais boobee voilà encore une fois dugalaat na di ak club boobu di Slavia Prague. 3 matchs 2 benn passe décisive bi bi mu dugal tey bii boobee voilà bii bu rëy la action individuelle de la amal mu duur ñëpp dem dugal kon kookee ku ñuy bàyyi xel la rawatina benn latéral gauche la. sorti sur blessure face à Cadix voilà nag il y a quelques jours kookee di Nobel Mendy nag voilà dina manqué lii mooy ndorteelu saison bi ci liir mooy Liga boo soxandikoo ci dernier xibaar yi club am boobee na ko ci tes médicaux yi. kon Nobel Mendy nag voilà buñ mooy dina toog deux à trois semaines de compétition vraiment une mauvaise nouvelle lañ fësal buñ soxandikoo ci foot seen pour Pellegrini bien vraiment compté woon na lool compté woon na lool ci moom nag mu teg ko ci défense centrale bi mu ñëw indi leen doole waaye cat moo ci dugg pour le natif de Guédiawaye kon li ñu wax mooy que prompt rétablissement mu wér péngkat ñu war ci jonte moom même ñu koy xaar ci Liga i sport bi ci saison bi kon cant ak ngërëm ñaan di leen di leen jaajëfal ci yeneen xibaar sur le sport 221